kenn def fi lu gën liggéey sëriñ Tuubaa kenn def fi lu gën liggéeyal sëriñ Tuubaa te liggéey sëriñ Tuubaa rek fa war a am te liggéey sëriñ Tuubaa rek fa war a am teewal yooyu nga xam ne sëriñ Tuubaa mi ngi ko jëlee ci Rasulullah sallallahu taala nañ ci darajee barab bii dagan dogu nañ ci darajee barab bii mu jagleel la ko mu jagleel la ko xëpp la ko xëpp la ko ndax kon dinañ ci am ndax comme danañ ci am sonn nañ sonn nañ ci diggante boobu. xalal ak makruur xalal ak makruur. xalal kese rek lañ soxla. xalal kese lañ soxla ñu ànd ak yow. ñu ànd ak yow def Touba. def Touba mislas miha. mislas miha dëkkam bu tedd bii. dëkkam bu tedd bii di turandoom ba ci àjjana. di turandoom ba ci àjjana. teel nañu te wax nañ la ko fii. ci teel nañu te wax nañ la ko fii ci Fawzeyni. dimbali nu Mbàkke. dimbali nu ci Mbàkke. dimbali nu Mbàkke. dimbali nu Mbàkke. dimbali nu Mbàkke jërëjëf. bëgg nañ liggéey Sëriñ Tuubaa fii. bëgg nañ liggéey Sëriñ Tuubaa fii. noo xam ne noo xam ne adduna sëpp dañ koy xam adduna sëpp dañ ko seede te yow rek lañ ci yaakaar te yow rek lañ ci yaakaar yow mii rek lañ ci yaakaar yow rek lañ ci yaakaar leneen lu nit di xalaat nag waaw barke Ahmadou Bamba jaaxalunu leneen lu mu doon nag ragaluñu ko suñu xel dal na ci def sëriñ ginnaaw mukk ci adduna jërëjëf duna daw jërëjëf jërëjëf maa ngi nuyu bu baax a baax di leen sant dégg wax ji gis nañu jëf yi maa ngi leen di seere sahaadatu suuri sahaadatu suuri mooy seere fan dinaa loola kabaayir yi la bokk nga yi gën a màgg ci bàkkaar la bokk xaaratu suuri ci kabaayir yi la bokk moo tax noonu koy teet fu sunu ko yéene def kon nag ama saydina ilaa bi ma alimna ama kunna lil ghaybi haafisin ñu ngi seere nañ ñu ñu ngeen jëflante ñun ak ñu ñu wax ak ñun lépp mbirum Sëñ Tuubaa dara jënd ko ci ñu bokk jàppul na wax jàppoo ko lam jëf xanaa jàpp ko loo jot maa jàppe loo dégg loolu moom yàlla tëgguñu ko seere nañ leen yéen ñii de ngeen ñu sëñ Tuubaa jëf yi jëf ngeen di jëf ci màggal ji ak ci gàmm yi mënuma koo lim jëf yi ngeen di jëf ci yi mënuma koo lim lii teg lépp nag sëñ Tuubaa ngeen ko ko ko jàppe li ngeen jëf moom leen seere nag lii sëñ jàng xasida yi ka joxe ak ak fu sama soxla fu ma ndigal jëm rek yéen a nga fa jëm bu dem ca daara yi gis seen jëf si kër gi i jëf bu di kër sëñ Tuubaa nga dafa ne ci yére yëpp yenn a ko fa andi loolu nag moo rek loolu ma seene ne yéen a ko doxale ci moom te di ko nangu ci ay fekk leen ci ngeen yàggul koo defal yàggul yàggul ko yàggul ko nangu addiya ji li mu waxoon ci addiya yàlla na leen ci fekk wax na ne bokk na ci njëriñu addiya ñu loolu addiya jëriñ ci bokk dane bokk na ci njëriñu addiya di bari la néewoon di barke la bari woon di def fa dara nekkul woon fekk bu ñu jógee bari na fa mu barkee ko fekkee néew na fa mu bari ko fekkee dafa nekkul woon mu def ko yàlla na fekk ci ñun ñëpp élection yi nañ ko seetlu nañ yéen a ngi jëfandikoo bu baax ci yoonu sëñ Touba loo xam ne jëmm dong nga tax dara yéen feeñee lépp day lu baax moom la ñu mën a seere moom mën a jàpp mooy wax ji ñu ni ma dama ngërëmam fekk bu baax a baax ñu ne àgg ci yoonu jëf ci ak jëriñ ci nu àgg ci am na lu ma leen waxoon nag màggal bi ak gàmm gi la naa yéen yi ngeen def ci màggal bi